jërë ngeen jëf ku xëy xool xibaar bi ci xët mu njëkk l'observateur foo jaar laaj fu réew mi jëm pil yéenekaay bi ñàkk kaaraange gi ci Sénégal ak ni muy gën di màggee bés bu yàlla sàkk la l'observateur sukkandiku ba bind ne tiitaange ci Sénégal ku ñu teg loxo ci manifestation yi amoon ci réew mi di mi ngi ñuy wax ne toll nañu ci ñeenti téeméeri doomi aadama ak fukk ci Ndakaaru ak ñetti téeméeri nit ak juróom benn ca banlieue bu Ndakaaru jàpp nañu fii ci Ndakaaru ndakaaru fukki jigéen ak juróom benn yu bokkoon ci doon manifester jàpp ci banlieue bu ndakaaru ñetti jigéen ñu doon manifester am na ay mineurs yu baree bari yu ñu teg loxo ci manifestation yi secteur privé bi ci réew mi l'observateur mi ngi ñuy wax ne wax nañu ne li ñu ñàkk ci manifestation yi fi amoon kenn xamul lu mu toll Le Quotidien nañu waa CNP di conseil national patronat ñoo doon def démb ab conférence de presse doon fa leeral loraange yi ñu ci manifestation Diop yóbbu ci chômage technique lu mat ñetti téeméeri liggéeykat 300 employés la waa Auchan a wàññi ndax ñàkk lu mu leen fay waa Wave ne ñàkk nañu chiffre d'affaires bu toll ci conseil national patronat yéenekaay bi nee nañu wax nañu it ne secteur tourisme bi ak transport maritime bi ñoom it dee wett la def ci manifestation yi journal bés bi le jour dolli ñu ci ne waa CNP nee nañu bu ñu moytul loraange du fi yam mën naa dem ba jur ak yokku ci a jur bëy di añ i gaayam di xam nañu gis ci réew bu raw bi ñu dundoon ci jamonoy coronavirus bi journal Les Échos bind ne pétrolier yi ñoo ngi jooy ñetti di jooy ñetti milliards yu ñu yàqule waa Wave di wax 40 pour cent yu wàññeeku ci seen chiffre d'affaires Sonatel di wax 677 millions yu ñu yàquleegum te pareeguñu ci seenub xayma kilifa yi jiite Auchan ñoo ngi wax seen juróom-ñaari magasin yu ñu toj ci réew mi songu leen caxat-caxatee leen sàcc la fa nekkoon jël yóbbu anki dina kay ci xëtam mu njëkk secteur privé bi ci réew mi ci faj ay góomam ca la toll muy yóbbu leen ci Vox Populi mi ñu xibaar ci xëtam mu njëkk ne ministre intérieur di Antoine Diome xamle na ne dinañu def ab enquête ci nervi armée yi ñuy gis ci manifestation yi manifestation yooyu ak fukki bakkan ak juróom-benn yi ci rot tribune nee nañu waa organisation des nations unies ñoo ngi sàkku ci Sénégal mu def ci enquête réew mi quotidien nañu organisation des nations unies teg na ay gët Sénégal bàyyiwu ko ñu bàyyi ponk boobee te wax ci beneen ponk mu di wàllu njàng meeg njàngale mi l'observateur sud du quotidien Source A le mandat vox populi lii quotidien ak journal L'Info ñoom ñëpp xëy nañu di ñu xibaar li tukkee ci ndaje mi amoon démb ca jam ñaajo ci diggante ministre éducation nationale ak syndicat yémbu ay jàngalekat L'Obs L'Observateur nañu ndajem waxtaan la woon wu ñu doon waxtaane ay pexe ki yoon yu ñu mën a jaar ngir indi ak dal ci année scolaire bi mu ne woon ci teewaayu ministre éducation nationale Cheikh Omar Anne ak délégation yu SAEMS CUSEMS ak seeni secrétaire général di El Hadji Malick Youm ak Ndongo Sarr wàll yëpp yéenekaay bi nee nañu waxtaan nañu ca ndaje ma ba déggoo ci fexe ba benn perturbation bañ a amati ci njàng meeg njàngale mi fukki ponk ak benn L'Observateur ne nañu ministère éducation ci ba juboo ci sursoit nañu muy li jëm a di mbirum prélogement yi ak paiement rappel yi terrain jàngalekat yi situation maître EPS yi formation diplômante yi ba ci mbiri Abdoulaye Diatta Corne Lambal di ñaari jàngalekat yi ñu suspendroon ci lycée bu jululu lépp la ñu démb ministre bi xamal fa syndicaliste yi ne ci wàllu woowee état bi dana seet nu mu ci dugale yërmande teggi tànkam ñu jaar fa ñu war a jaar ba ñaari jàngalekat yooyu ñuy suspendre delluwaat ci classe yi jàngale ji ñu dem ci seen wér gu yaram du leen mën a may ñu bëri ci date bi ñu am combat xewit woowee ci la sunu làmb sukkandiku ba gis ne VIP ñooy plombé arène bi